ci diiru ñaari fan Dakar na na rek amal ay yëngu-yëngu mu soxal commémoration bu appel Seydina Limaamu Laahi di taalibe yi nag tàmbali nañoo waaj événement bi lii Cambérène Ngor Yoff Jàmmalaay nekk bërëb yi nga xamante ne taalibe yi fa lañ nar a rek teewee pèlerin yi seen parcours spirituel ñi nar ko tàmbalee fële ca source bu nekk ca Cambérène foofee nga xamante ne fa la Seydina Issa Laay di noppalu. defe naa ni boo xëyee dem Cambérène nekk fa ya ku képp ku gëm Seydina Limaamu di nga ko fa fekk incha allah foofu mu ngi commencé 9 ba midi wala une heure mu jeex bu jeexee. ñu ñëw yoof ñi dallu dallu ba 15 heures ñu départ jëmaat Ngor incha allahu foofu tamit na Cambérène mel ci suba Ngor noonu lay mel ci ngoon gi foofu mu fam taw bi mu ngi commencé 15 heures et demi lay lay démarré mu jeex 17 heures 30 ah, bu jeexee nag julli ci yàlla yëpp dañuy wàcc si waat fii ci yoof fanaan fii buñ fi fanaanee nag ba xëy mooy yor yor bi nga xam ne Seydina Limaamul Mahdi yu ci la tax eh, wax ci wax ju rëy ji ji mu wax moo ñu nag bis boobu loolu nag moom mooy appel bi yor yor bi yi. déplacement bi ci ñetti bërëb yooyee nekk benn ci ay conditions ngir mun a amal appel bu nangu bu ñu sukkandikoo ci sëriñ Magum Kër Thiawlaay. parce que loolu mooy li nga xam ni mooy illa bi mooy li nga xam ni moom nga mën a jaamoo yàlla. mu fa toog ziyaar ñaan soxla yi yàlla yàlla ya faj aajo yi lépp li nga xam ne lu ñuy ragal la ci sunum réew sunu borom defal nu fi jàmm ak salaam defal jàmm def jàmm ci réew mi sunu borom dolli xéewal ak muy méngoo nag ak 143e anniversaire bu appel. appel Seydina Limamou Laye yi la émission nag lu mu jàppandikoom comme di paix ak développement ci leerug jàngatu Seydina Limamou yi mu di nag jàmm boo xamante ne autorité religieuse yu bile kër diine te woon nañ ko bu baax askan bi nga xamante ne nar nañ fa teewee nar a bëri lool fi ak ñaari fan yii